ci seen émission Faram Facce euh, Faram fàcce nag tey am na mbégte bu yaatu di ci recevoir honorable député Moustapha Cissé Lo moom la ñu fas yéene dalal tey bokk na ci kilifa yi ŋànk parti bi di APR ñu war a waxtaani lu bari nag ci ay politique bu réew mi euh, Moustapha Cissé Lo honorable député ñu ngi lay nuyu. Euh, Pam Ngañ maa ngi lay fay di la sant di sant kër gi mel na ne émission bi mooy sama ñaareelu yoon boo ma fi dalal ndax maa ko ubbi yaakaar naa ni. Euh, bi ma koy ubbi it ci situation politique yu jaxasoo la laa ko ubbee woon euh, yaakaar naa ne wax ji laaj nañ la ba tey ñu tegaat ko ndax tey wax ji buñ ko tegee xool ko day mel ne ku yoroon gis-gisu tey moo doon wax euh, tey jii moo tax bi nga ma woo dalal ma xat na waaye bi situation réew mi laajee lu bari ñu faram-fàcce ko ndax mooy leeral ko bi nga ma woo ma am mbégte ñëw fekk si la euh, may sant borom kër gi Youssou Ndour ci euh, télévision bi ak euh, groupe de presse bi mu mhm. monté mhm. ak it liggéey bi nga xam ne rafetlu nañ ko ci niñ koy defee xam ne ku ci ni day ñëw wax xalaatam ci ni mu ko war a waxee mhm. loolu rek moo am solo kon maa ngi leen di nuyu di leen ziare di ziare bokk Sénégal yi may déglu ak diaspora bi ci waxtaan bi ma fa nga fas yéene waxtaan ak yéen incha waaye lépp ma ci sant sëriñ Saliou Mbacke mi nga xam ne dama jógee ci cant gu ma ko sant mhm. waaye di sant sëñ Cheikh Sidi Mokhtar mi ko wuutu te cant gi mu taxaw ci taxawaay bu rëy mais di ko ñaanal ak Cheikh Bass bi nga xam ne mooy porte parole xalif général des Mourides sama sëriñ sëñ Mountakha Mbacke mu sëñ Bassirou sëñ Moussa Nawel yàlla na ma leen yàlla fayal ak bokki mhm. jullit yëpp mhm. amin euh, honorable député ñu soobu ci euh, waxtaan bi waxtaan bi nag dañ koy tàmbalee marche bi nga xam ni waa PDS fas yéene nañ ko amal ëllëg incha allah ci obélisque marche bi lan moo ciy sa xalaat njëkk waaye man laaj bi ma ci bëgg def moom mooy waa APR dañu pare ñoom pour amal contre manifestation ci wàll boobu ndax loolu lañuy ñuy woowee rupture ak ndax loolu la ñuy woowee yoonu yokkute. bul wax waa APR waa APR man kenn ëppale wu ma ci APR APR defe naa ni. comité d'initiative bi pour ñu jël appel juróom ñi ci jëkkoon di xalaat Badara Cissé Moustapha Cissé Lo Mahmoud Saleh euh, Sitor Ndour booba génnagul ci parti bi euh, ñoo ci jëkkoon di xalaat ci ndigalal président Macky Sall booba jógeeguñ sax assemblée nationale ci bundaxataal bi bi mu amee PDS bundaxataal bi. Macky Sall nga ma wax Mahmoud Saleh. Mahmoud Saleh bokkul woon ci comité bi dafa joxe woon ndigal Alioune Badara Cissé man Mahmoud Saleh. Sitor Ndour Ablaye Ndour député fii lañ ko defee ci kër gu Badara Cissé nekk. kon Mbaye Ndiaye moo ci bokkul woon. Mbaye Ndiaye boobu bokkul ci loolu. booba ci la ñuy xalaat pour nit ñuy bundaxataale. bu ñu waree génn te génn lu ñu war a def. Mhm. ci la ñu xalaat ne bu ñu bundaxataalee na Macky Sall dëgër am fit jàmmaarloo góor gi bu ko bu ko dàqee ñu créé parti danañ jot ci réew mi li may wax Badara Cissé boo ko laajee dana la ni lii nii la demee. Mhm. kon APR dafa yaatu. lii ngay wax maa ngi koy doog a yëg man te APR laa bokk kon li ma lay wax kon manquement am na bu dee APR dañu xalaat ne dañuy def contre manifestation mhm. man maa koy doog a yëg ndax tooguma ci benn instance su parti bi ñu ni nañu def contre manifestation nit ku bokk nag APR koo xam ne ki xalaat na ne moom dafa war a contre manifestation bu buñ ko joxee ndigal ak bu ñu ko ko joxul loolu da ngeen koy ràññetle ak ñi nga xam ne ñi ci biir bi la maa ngi lay benn exemple toj nañu las ak 24 heures chrono bañ ko tojee ay PDS ñoo ko toj est-ce que waa PDS leen joxoon ndigal kooku yéen a koy xam ak loi beneen problème bi muy Barthélemy Diaz ba moor doom am dem nañu ay oto yu PDS a fa dem. Mhm. fekk ko fa muy liggéeyee ba koo faafaagal bañ nit ñëpp wax nañ ne waa PDS leen ko sant est-ce que waa PDS la wala ñenn ci PDS. loolu dafa baax di ràññat leen. Mhm. buñ ñu teel rek ne damm la. APR partie républicain la bu am ay structure bi ci gën a kawete moom rek lañ ci xam sax d'ailleurs mooy directoire de l'APR. d'accord directoire u APR mm-hmm. nag mosuñoo réunion. Mm-hmm. ni bis bi danañ def contre manifestation. li nga wax donc loolu laa ci li nga wax dégg naa ko. li mu bëgg a dégg sa xalaat moom mooy Oumar Sarr coordonnateur u PDS dégg nañ ko mu ne ba léegi préfet jox leen autorisation ndax itam loolu dañ koy xaar ci rupture euh, ci wàllu démocratie ak liberté. gis nga man mi dàq nañ ma ma nekk député. arrêté de bureau lañ ma dàqee Makhar Mbaye Ndiaye loolu suñu ginnaaw mais mais c'est important il faut ma leeral ko boo bëggee waxtaan bi neex da nga ma ci <clears throat> ma dem damaa ñaan autorisation pour marche ci Mbacké yéen a ngi fi woon préfet bi daal lank ma ñaanaat mu lànk donc préfet bi dafa lànk moom nga may ma may ma tuuti léegi réew dafa am nu muy doxe man d'accord naa ne loi bi dafa wax ni ku bëgg a manifester ñu may nga manifester bu dee conditions yi remplir ni mais loolu man du suma rôle en tant que politique dama ni képp koo xam ne dafa am loola naqari yoon may na la nga dem wane ni autorité bi yor administration man lii dafa ma naqari maa ñi ma àndal damaa bëgg bis sangam heure sangam jaar ci yoon sangam def manifestation loolu bu dee seet nañ ko te xam ne jubluwoo ci lenn loo xam ne day faafaagalum réew wala day détruire euh, euh, l'unité nationale wala day indi ay insécurité te ñu am force de l'ordre dañ laa war a may autorisation loolu mooy yoon loolu mooy li yoon mais loolu man non mais man du man may apprécier man politicien la man du ma apprécier li may wax mooy li yoon yu wax kii apprécier bul fàtte aussi député nga politicien nga mais député nga ak sous préfet bul fàtte ni politicien nga waaye aussi député nga dama ni moo tax ma wax li yoon yu wax waaw te loolu laay défendre mais bañ rek nga làqu ci ginnaaw déedéet dama wax ni man loolu duma ko atte mënuma ci mhm, atte mhm. xam nga kañ lay atte bu ay fait amee ci lay atte non mais fait passé wul ñuy xaar seen autorisation ba léegi préfet joxu leen ko fekk dama ni ba euh, préfet bu ko neexoon xaar ba suba ci suba gi mu doog a joxe avem ndax préfet autorisation bi du ab obligation bu gisee ne moom gis na ne lii mën naa faafaagal wala mu nasaxal wala mu indi désordre am na droit woo ñooñu ni leen lii gis naa ci lii moo tax duma ko autoriser. du ma ko autoriser mais pour mu autoriser ko ñoom bu ñu defee déclaration te xam ne danañ respecter conditions yi préfet jox leen autorisation bañ leen ko joxe dé faux débat la man loolu laa gëm. d'accord tant que préfet néewul. Mhm. néewul joxuma leen ko dañoo war a considérer ne ñoom seen manifestation am nañ ci droit. d'accord loolu laa war wax. léegi ñu dikk ci li waral marché bi li waral manifestation bi. mooy harcèlement gu ñu wax ni ñu ngi leen koy harcelé ñoom waa PDS may ñu leen jàmm ñu leen di bundu xataal euh, ci jiiñ leen sàcc alalu réew mi ci topp leen euh, loolu la ñu wax ni moom lañu ñu tay ba tax ñu bugg ko ñaxtu ci mbedd mi. mais mënuñu ko ñaxtu. dañoo gérer dañu war a rendre compte. ñoom waxuma ñëpp mais am na ci ñu sàcc alalu askan wi yu bari ci ñoom barke Cheikh Ahmadou Bamba am na ñoo xam ne dañoo tonni. maa ngi poser toujours question moo du Diagne Fada te tontoogul te yeen wowu leen ko mu tontu am na centre d'enfouissement technique boo xam ne bi xaalis bi génn na quatre cent et quelques millions pour Ndiass moo nekkoon ministre de l'environnement xaalis bi bi ñu koy génnee moo fa ne du Diagne Fada woo leen ko ni ko xaalis boobu fu ñu ko def ak ana fa centre d'enfouissement technique ba ne mhm. bu dul loolu dañ ko war a jàpp bu dee moom loxooma nga ca ak ñeneen ak ñeneen ay kuddu yoo xam ne dañ koo jënd xaalis bu loolu càcc la ma ni bonne gouvernance maa ngi koy wax Latif Coulibaly mi ngi tàmbale wax naa ko commission te ñi bees laa ko wax dama ni ko tant que génneewu leen fi marché gré à gré tant que génneewu leen fi surfacturation bonne gouvernance du am <laughs> mais yow man li ma tuuti may ma li may wax dama bëgg mu leer dama bëgg dama ni surfacturation <laughs> nday ji mooy marché gré à gré kumba ndey am ndey kumba amul ndey mooy loolu ndax alal ji ñun ñoo ko bokk kon ku koy gérer da nga war a def transparence ci ni ngay joxe marché yi mais dañu war a xoolit li ñuy def njëg yi par rapport ak njëg yi nekk ci réew mi. honorable député man li nga wax ci Modou Diagne Fada dégg mais li nga xam ni bëgg naa nga wax ma ko mooy Ablaye Wade mënu fee nekk tànn fi plus de téeméeri ministre ak lu topp ci nguuram ëpp na ko sax di dem tuddloo ma ci benn exemple bu dul Fada naan ma ay 400 euh, millions. ak euh, xam nga man waaw. yàlla bindu na ma bu may laaj lu leer lay laaj lu concret li ma la wax ci fana dégg nga ko dafa nekkoon ministre xaalis ñu génnee ko dégg nga na loo wax ci bi mu nekkee ministre wootu ko loola arrangé nañ ko xëy na sax fada looloo tax ñemewul woon a génn PDS bi bi bi ko gars yi bu ndoxatal mais dama ni loolu day lu leer naa ñi moom beneen bi am nañu ko wax muy ci kuddu yéeg ci Awa Ndiaye kon mënuma sit ndax dama dama ni man dama ne ni ñooñu muy groupe gi ñu ciblé am nañu ci sàcc alali askan loolu laa wax dama li ma wax dafa leer du ma ni diw la wala diw du diw mais ñi ñu joxañ gannaaw am ñu ci sàcc nag dañ leen di woo ku wax nag ba wax lu leer mhm. ne yow sàccoo waaw mais yoon sañu laa topp mais ñi ñi ñu joxoñ ñooñ dañ cee boole woon Aminata Ñaan te bi mu duggee ci seen ay loxo kenn tuddatu ko mais dama ni dama ni man li ma la wax man xam nga Aminata Ñaanoo keneen ku ñu mën di tudd. wu ma li ma intéressé mooy képp ku ñu joxeñ ne sàcc nga mu am ab dossier. la ma waxoon dañoo war a topp dossier bi waruñu seet même bu dee ku daw làqutu si ci Macky Sall dañ koo war a seet càmbar ko parce que alalu askan wi la ñu jàpp ko mu delloo xaalis bi buñ ko gisee ci moom loolu laa gëm. Macky Sall amul droit te yaakaar ji askan wi am ci moom muy aar kenn wala muy protéger kenn parce que jege nga ko. d'accorduma ci wala daw nga ñëw làqu si man loolu laa wax loolooy sama gis-gis loolu laa ànde ak Macky Sall man mënumaa wax nag leneen Macky Sall na topp audit na am fit buñ ko xoqtal ndax askan wee ko fal biñ koy fal kenn ko mën a revendiquer ne man rek maa tax ñu fal ko amul ñun ñoo mobiliser sensibiliser askan réew mi yàqu nit ñi ñu xam ne ñu ngi pasar pasare alali réew mi ñu ngi ko yàq te nit ñi def révolution Macky Sall am chance su génn au second tour nit ñëpp mobiliser jox ko réew mi léegi nag la nga xam ne woon mooy li nga xam ne ñun ñëpp ci lañ doon xeex te xam ko muy la mal gouvernance les détournements de deniers publics loolu dañ ciy dem ba jeex man loolu laa gëm bu loolu man politique bi dama ciy génn dootuma ci wax waaw mais amuleen leen leneen lu ngeen war dem ba jeex lu dul loolu. mooy li ngeen diggoon askan wi ci seen wàllu dundu. mais loolu ñu ngi ci man je félicite. amul leneen lu ngeen war a dem non bu ngeen yow bu ngeen ci nekkoon. dama ni man Macky Sall li mu nekkee ci côté yooyu pas yi mu teg ak acte yi mu teg dama ci ak kontaan ànd ci ndax gëm naa ne bu doon Ablaye Wade ba léegi man mosal nañ ma deux cent million ba ak dagal ma te amaguma ko ndax defal naa Macky Sall ko jar. e ab Ablaye Wade noonu la def bi mu ñëwee daa dagg aéroport bi bépp jox ko Farba Senghor ñoom ak euh, waa alternance ñëpp fi am kër te kenn mosu cee am mètre mètre kër kenn amu ci woon foo dëkk léegi loolu Macky Sall loolu rek dañ ko cee war a féliciter ñu ànd ak moom barke Serigne Bamba gisaguma ko ci am aw ñu ngi ko ci jiñ ci loolu ci ay kër yu mu ci am may ma tuuti li ma bëgg wax rek mu leer mais di nga ko wax waaye Macky Sall itam beneen problème bi nga xam ne daf koo def mooy daf fee fekkoon Ablaye Wade ni nga tuddee Farba Senghor ci kër yi moom itam Macky Sall tudd nañ ko ci kër yi Ablaye Wade ci boppam daa faboon alal ji di jox ay kumba ndey am ndey kumba amul ndey mu génneeku sunu alal ñu naan fonds politique la di wax leneen di tibb fu nekk di joxe gars yi di coxtu coxte ak lobby business yi looloo fi amoon état business état business jeex na tey gars yëpp a jaaxle moo tax ñu naan xaalis amul ak leneen amul business moom baaxul léegi état la ñu bëgg un état républicain un état démocratique non non dégg li ñu bëgg daal mooy mooy les règles et les principes démocratiques républicaines d'état ñu respecte ko te Macky Sall mi ngi ci loolu li ma gis mu koy def ci côté boobu man dama koy appuyer di ko féliciter tant que mi ngi ci yoon woowu il aura mon soutien mooy mu yaxan alal ji ndax bi muy campagne loolu la bande boo xam ne Youssou Ndour a ko way moom lañ daan campagne mhm. bu nu demee ci nit ñi ni leen mille quatre cent milliards bari na mën na lu bari kon biñ ñu jotee réew mi dañoo war a yaxatan loolu li ci des nit ñenn ñi di wax mais yow euh, papale bu ñu la nommé benn poste budget at ma ñu lekk ko ba lekk quatre-vingt pour cent ba ñu jox la ko looy liggéey ci at mooma Macky Sall mënu fee def dara ci 2012 ndax dañoo tonni yekk kees gi lañ def këmbu kaay ko def ko ci seen i gafaka demaale ko muy waa PDS ak régime o Wade loolu bu buñ ko defee 2012 Macky Sall mënul dara day day lijjanti nañu xaar ba 2013 ba xam li mu wax dana ko attaqué mais 2012 bu kenn yaakaar dara da ngeen di sonn Wade da ko waxoon Ablaye Wade nee na woon bu ngeen bu ñu bu ngeen joxee réew mi fay solde sax du am. ñooñu góorgóorlu mais ba ma ko waxee lu Macky eh, moo ko wax waaw fay nañ solde yi. waaw léegi nag li mënuñoo réaliser dara ndax li nu tappale euh, dajale ko gannaaw bi ñu sàccee ñoom li ñu sàcc ba dem lekk fonds politique yi huit milliards jël carburant yëpp dindi ko politiquer ko li ñu man mooy te réew mi fay employé yi bu 2013 na xam ne ñi fi ne nit ñu set lañu ñu bëgg a liggéey lañu li ñu dig sénégalais yi ñu def ko loolu laa gëm. nañ waxanteeg nit ñi dëgg ñii di yax-yaxi di tiit ak parti parti dañoo sàcc c'est des voleurs bu leen nit ñi topp nañ leen bàyyi ñu tëj leen ci kaso bi ñu génne xaalis bi réew mi naat man loolu laa gëm euh, Moustapha Cissé Lo wax nga ma ci sa biir wax léegi ni Ablaye Wade bi mu ñëwee ñoom am na ay tur yoo tudd ne ku ci nekk daf la daggal jox la terrain jox la xaalis loolu la defal waa alternance yooyu mais ñooñu Macky Sall ngi woon ci seen biir. mais weddiwu ma ko xëy na jox na ko mais doxi na man fi mu ne bu Macky Sall daggoon terrain jox ma ma jël. parce que dama jox nañ ko ay nit mais defaluma ko loolu rek laa bëgg a wax néewuma bu mu ko def mais dama ni bu meloon ne moom da koy roy roy lay def kan mooy wax mbàkk yu fay suuf si sëpp moom lañ ko jox ah bu ma joxoon suuf si kan moom ñemee wax ku waxul woon ci Ablaye Wade de waroo ñemee wax kon loolu laa wax te defaluñu loolu ñun kon nag loolu nañ ko ci war a sant waaw ñu ñëw ci beneen ponk mu aju ci benn mouvement boo xam ni créé nga ko muy euh, mouvement Horizon 2000. 2020 Horizon 2020 lan moo ko tax a jóg. waaw maa ngi lay sant Pape Ngagne euh, xam nga man dama dama am nu may liggéey samam xel lay liggéey. Mhm. man dama bokk ci ñi nga xam ne Macky Sall bi ñu koy faafaagal ci PDS. Mhm. damaa nekkoon député nekk député CEDEAO am teraanga ci PDS Ablaye Wade nekk suma xarit mu jël ko ba koo faafaagal ànd ak ay nit yu koy complot. man kot dong rek ma toog jàmmaarloo ñoom xeex ku ñëw daf ma cee fekk maa porté woon dossier bi ci assemblée porte combat bi may xeex gars yii bennoo ànd ak Macky Sall ñëpp nag laa wax ñoom ñëpp dañ doon complot pour Macky Sall du nekk candidat. mu ñoom Moustapha Niass ñëpp. ñëpp ci bopp ñëpp laa wax Idrissa Seck ñëpp laa wax. ñëpp dañ doon complot contre Macky Sall dama ne Sall du nekk candidat. àgg nañ ci sax di ko tiire naan traître M23 la lu ne wax nañ ko ko. man ma taxaw ni par force wax naa ko fii mën nga ko génne day nekk candidat te da leen di gagné yàlla dimbali ma bu ma dimbalee ñu ànd ci parti wër Sénégal gépp mag Macky fanaan ci otoom fanaan ci gunu dem ci àll bi lekk sandwich def lu ne bokk taxu loon ma bokk APR de ndax Macky Sall daf ma invité APR ma ni ko du ma bokk ndax doyuñu ma loolu mooy dëgg ñi nekk APR bi ma leen gisee kenn laa ci mënoon a topp ngi wax ñaari wax li ma wax nga APR biñ koy sos yaa ngi bokk ci APR ci laa bokk initiative laa wax ah, ini bi ñuy jël initiative parti mais bi ñu déparé rek am na lu ma doyul li ma wax dafa clair man samay wax damaa bëgg mu ne bam ma doyul dama ma bokk te yow déggoon nga bi ma naan du ma bokk APR ci membre fondateur nga ma bokk waaw waaw non mën a bokk ci membre fondateur ba pare ñu la ciy invité li ma wax dafa clair comité d'initiative bi xalaat initiative bokkul ak bokk de lii maa ko initié te ci bokk mouvement bi mouvement bi duma ma ci bokk maa koy créer c'est un mouvement que je vais parrainer ba ma demee ba ñu créer parti bi créer nañ ko lu yàgg ma xam le ca Touba ci kanamu benn kilifa Macky Sall toog ma APR Macky Sall invité ma këram ñu bokk añ soxnaam toog soxnaam keroog la ni ma yow yaay APR ba ci yax bi Macky Sall ñaan ma ma bokk APR ci laa jël kartu APR ngir bëgg na ma ànd ak moom ci li muy def loolu moo am moo tax ma koy wax mu clair mu ni ma def na ma coordonnateur de Mbacké laajuma ko def na ma membre du directoire chargé des comités d'entreprise ma jël ko li ma ci man def naa ko ci yàlla dimbali na ma bi ma ci bokkee parti bi gagné na mais ma xamal la ne parti bi kenn laa ci mën a déglu ay waxam. may ma tuuti li may wax non parti bi xam nga dinañ ci ñëw. mënuñu mënuñu xam nga. mais parti bi ngay wax dama dama bëggoon moom laay wax ñu wax ci lii. ci laa bëgg wax ak mouvement bi nga ni ma da nga ko créé mais bokk. mais moom laa bëgg mu leer dama la ah. bëgg a wax. parti loolu bëgg naa nga wax ma nu mu a mhm. li ma yaakaaroon ci doxinu parti bi li mu war a. muy APR. gisuma ko man da nga ci génn kon. du ma génn parti parti mënoo cee dugg ba pare génn mais dama jàpp ne mënuma liggéey ci condition yi parti bi doxe mënuma ci liggéey ndax parti bi wax naa ko bind nañ ko depuis ñu créé ko ñu ñëw élection dafa mel ni nin doon dawe pour dem gagner élection yi dañoo reculer léegi mel na dañ koo teg fële. bi la. waaw may ma tuuti may ma tuuti. patrie léegi loolu bi mu. amee bi moo tax ñu teg parti bi fële. bi mu amee. Mhm. man ma jàpp ne comme man en tant que coordonnateur de Mbacké bi ñu foloo ba léegi mësuñoo toog benn ndaje boo xam ne bii dañoo woo coordination yi wax ak ñoom wala leneen ma jàpp ne pour man ma mën a liggéey sama digganteeg askan bi li ma leen diggoon ci Macky Sall wër addina bi dem France Italie Amérique dem Afrique. xamal leen ne Macky est le meilleur candidat ma mën cee taxaw am proposition yoo xam ne Macky suma groupe daañu ko mën a def kii wowuma ci kenn koo xam ne kii du ko bëgg Macky Sall dama ni ñi jàpp ne dañoo war a accompagner Macky Sall moo tax ma tuddee ko horizon deux mille vingt ADSL ànd jàppale sumu leader. moom la mouvement bi tudd. waaw léegi mouvement bi suma jabar laa koy moo koy jiite. Mhm. mais man maay la principal bailleur de ce mouvement. d'accord léegi nag mouvement bi. danañ ko lancer ci mouvement bi du ma bokk mouvement bi c'est un mouvement que j'accompagne ak ay bonne volonté yoo xam ne. ñoom gisuñu li nga bëgg a wax. non non li may wax dama non non assumer ko honorable député nga baal ma. lima ma bind dafa leer dans le mouvement on a mis aujourd'hui donc il s'agit d'initier de nouvelles démarches pour l'intérêt de l'APR et de notre leader le président Macky Sall qui ouvre toujours pour la bonne marché du yoonu yokkute mais la création du mouvement a pour objet d'appuyer la politique définie par son excellence le président de la République Macky Sall pour mieux préparer les échéances futures rassembler par la même occasion toutes les bonnes volontés et sympathisants qui ne se reconnaissent pas dans les structures régulières des partis de la coalition donc bu Youssou Ndour ngi ci bu Niass a ngi ci koo xam ne comme man waaw gisoo sa bopp ci biir so ndax man gisuma sama bopp ci structure yi APR ni muy doxee gisuma sa ci laa bokk mais gëw ma ni muy doxee gëw ma ne man naa tax ñu am beneen mandat ma ne ñooñu ñëw leen yéen avril nous monter un grand mouvement. ba tey doo ci bokk wër Sénégal. ba tey doo ci bokk. parrain la je suis le parrain du mouvement. non man xaw ma lan mooy différence. sama jabar pour lu bokk ci la. ma femme ma femme Ndeye Guèye la présidente. d'accord moom xaritu président Macky Sall dafay soutenir Macky Sall. moi je reste dans le parti. mais man Moustapha Cissé Lo danaa gisante ak président. Mhm. wax naa ko. damaa bëgg mu génnee ma. en tant que coordonnateur bu département Mbacké bëggatuma coordonné ah bëggatuma ko hmm? bëggatuma ko moo ma ko joxoon léegi dem nañu ba ni ñuy eh, doxee ci Mbacké neexuma non non non ci dama war a génn foofu nekk militant simple loolu léegi léegi da nga ko da nga amatul pexe parce que am na député bu fa nekk muy Abdou Lahad Seck lépp ci loxoom lañ koy teg mel na ni moom mooy coordonné sa tur rek moo fa nekk waaye lépp lu fay doxal moom moo koy def xam nga ni loolu moom mooy mujj moo tax nga bëgg a jël les nuruwul loolu est euh, Pape waaw man je suis responsable waaw du ma wax loo xam ne bokkul ak li ma gëm mhm. mënoo ma ko wax loo nekkuma fii pour di def promotion ab nit ndax dama wax ni man département Mbacké mhm. parti yëpp laa ci bokk boole mhm. PDS ak Pape Diop parti je suis le leader politique numéro man kenn mënutu compétir ak man laat sekk mi ngay tudd man maa ko sama xaalis ba léegi fayaguma ko ñaari millions yoral na ma ko maa ko bi ma ñëwee dafa sukk sama kaw bu room ni amuñu lu ñu campagne maa ko investir maa investir maam xari maa investir galas kaltoom maa investir euh, AFP même AFP bi ñu ëndee Aliou Ndiaye bu Mbàkke bëgg ko investir maa xotti kayit gi ci kanamu ñëpp sànni fële lan moo tax xeexuñu def ci ami Cheikh Diop boobu moi je le leader ku toppul sama gannaaw doo nekk dara muy Lat Seck muy keneen man loolu laa gëm man maa leen dugal Lat Seck bu ma bëggul woon mu nekk barke alquran du dugg ci liste bi ndax bu ma ne woon bu ci am na ñeneen ñu ñu ci xalaatoon te damaa lang lii may wax je di o haut et la ma def man affaire bu ma ko defoon ci ci ci taatu garab garab gi day jebbi bu doon dee man ñooñu dama dul seeni nawle ak moroom damaa naw loon tewul ak ñoom ndax bokkuñu xam nga ñoom politique moo leen defar pour ñu am solde man nag dama liggéey ba yor ay millions def ko ci parti Macky sal wër addina bépp pour Macky Sall falu barke alquran bu ma àndul woon ak sal Sall sal Sall du falu billahi wallahi taala boo àndul woon ak moom du falu billahi bu ma bokkul woon ci parti bi xeex-xeex bi du jege sax fu ñuy falo du ko je barke alquran al karim te li ma wax nañ ko weddi nañ ma génnee ñoom seen parti buñ ma génnee nga xam kan laa man man rawaan laa de bu garaw sax Ablaye Wade waxoon naa ko mu weddi ko tey laat koy wax Macky Sall nee ko na ma génnee partem non man sequma ko moom yaa ko seq moom ah, kon nag bu ma wax loolu. ko mu dégg li ngay wax kon man man jàppale Macky Sall moo ma tax a jóg. dama bëgg mu leer jisuma lu ma koy bàyyee gisaguma ko mais bis bu ma ko gisee ba ko Macky Sall jox na ma cër. maa ngi séq ak moom mais ay yàqkat ñoo ko wër. li nga li nga wax yëpp honorable député dégg naa ko waaye fenn laa d'accordul ak yow. mooy fi nga ne ma budul woon yow Macky Sall du mais moom laa gëm dama yow benn voix nga am may ma benn voi benn carte nga am. mais ma posé question. waaw ma bëgg wax ak sénégalais yi jàkkaarloog ñoom. dama benn carte nga am. man Moustapha Cissé Lo bu ma àndul woon ak Macky Sall du falu barke Cheikh Ahmadou Bamba liggéey naa loo xam ne lii ci baatin ci saayir ci xeex au prix de ma vie ak sama famille billahi wallahi taala bu doon àndul man am yàlla andilu ko keneen te loola du yomb yonent bi sallallahu alayhi sax bi mu naree dem guerre yi dañ koo boole ak ay saaba yu dëgër Alioune Ababacar Omar Ousmane Khadija man may gaynde je suis un lion du ma tiit du ma daw ma xeex samay bokk xeex ak sëriñ si ñu bëgg a jox ndigal ma xeex kenn daa ñeme woon a ŋaang bi ma ko waxee même ci parti bi am ñu naan li mu wax bu ma waxul ndigal yi day génn. Hmm, kon yaa tere ndigal yi génn génn man la mais kon ndigal yépp ay jaar fu kon bu ñu ma fontoo gis nga man béjjënu jëlaa du ma toog di jëw kenn dama ni parti bi niñ ko sose woon di wër di dem ci nit ñi di wax ak nit ñi nañ ci dellu buñ bëggee falu ya honorable député li ci des muy hmm. Moustapha Cissé Lo hmm. man du ma amati benn parti d'accord may ma tut dama bëgg terminer foofu boobu parti benn lay am APR la tudd sauf waa APR directoire bi daaja dajane dàq nañ ma ci seen parti la ma waxoon PDS. buñ ko defee nag duma buñ ko dàq dafay ma ma bu bés baabu danaa xam ni may def mais man du ma démissionné ndax APR la mais nag tant ma bokk APR bu ma amee lu ma naqari te tooguñu woo parti bi ñu wax ko ci rajo yi rek laa koy wax ak télé yi loolu la te li ma naqari bari na ci APR dara neexuma ci ci ni muy doxee ànduma ci it je suis contre ni APR di doxee. Mhm. d'accorduma ci te maag APR yi yëpp a ci ànd kon bu dee Macky Sall moom delloo na njukkal waa APR na ñëw waxaat ak ñun ndax liy njariñ joxuñu ko APR ay alliés lañ ko jox ak i nit ñi ngi jëm conseil économique et social warul nekk sax débat pour ñu jox ko ku bokk APR. APR ñoo war a jiite Aminata Tall lañ ciy tudd. APR laa wax man waxuma kenn dama ni. dama ni Aminata Tall lañ ciy tudd choisir mais APR man tudduma kenn dama ni. Macky Sall APR la war a jox conseil économique et social jaaduwul institution yi premier ministre lépp ñu jox ko ñoo xam ne bi ñuy xeex gisuñu leen d'accord ma ci na ma doon xeexe assemblée loolu laa gëm nga jël ko kooka mu jël ay nitam joxi directeur de cabinet joxi conseil jox leneen ñun ñuy xool. ana cadre APR ana cadre ah, yi nga xam ni kon dañoo amul affaire ana cadre yi nga xam ni attan nañ institution yi. du jeex du jeex man du ma cité dama ni APR daal. conseil économique et social ñu ko mën a yor du fa jeex. nañ leen jox APR. léegi honorable député wax nga ma léegi ni ma budul woon yow ndigal yi dana génn fu ne. waaw parce que yaa ko xeex. maa ko xeex sëriñ si maa leen ni ku wax ma tontu la ci. sa tontonte boobu nga nekk ak sëriñ si est-ce que du moo tax ñu bëgg beneen leaderu APR ci biir Touba. xam nga man xam nga man. dama ce que du loolu moo tax ñu bëgg beneen leaderu APR ci biir Touba yow ñu teg. dama ni dama ni mhm. benn taalibe ci boo xam ne kilifa kër kilifa gu xew fab naa suma alal dem ca kooko jox ma ca mais man damay politique benn sëriñ wàccul ci terrain bi di politique comme ni may def man maay politique maa am base politique ci departement Mbacké sëriñ bu ñemee kay na wàcc politique ak man ay sëriñ a nga fay politique te dama leen di gañ ci fii ñu dëkk waxoon naa ko ni leen Touba mosquée gi ma dëkk maa ko moom bu ma waxee fi may voté bu ma nee ka sax jiboka la ñuy woteel loolu léegi nag loolu nañ ko weddi mbaa ñu tekki man aw maag problème benn sëriñ boo xam ne sëriñ la de sëriñ muy sëñ Cheikh Sidi Mokhtar gëléem la ma jox ci sama cant gi sëñ Bass Abdou Khadir nag la ma jox kilifa yépp a fa jaar sëñ Muntaxa fa lay yandu ban sëriñ laa amal problème sëriñ buy lekk alali ab lay wat di ko nax te amoo taalibe amoo ab aw aw carte lekk xaalisam di ko wax naan nañ la fal di jaxas xelu nit ñi ku ko ci wax ma tontu la waaw tontonte boobu laa la laaj. ndax taxul beneen leader la ñu bëgg ñoom APR ci Touba. ku dul tontu service xam nga man euh, li may wax. ndax yaakaaru xam nga message bi may jàllale. Mhm. Macky Sall moo koy décrypter. ndax leader yi ngay wax ndax man ñii dem di yàq di fab ay gone di leen jox naan leen attaque leen si selo wala def leen loolu ñu du sama dàll leen man bokkuñu. Mhm. bokkuñu y' pas photo entre nous que que soit un ministre fii dans ce régime laa amul ku ci ciy nawleel ci politique amul. léegi loolu laa gëm léegi nag Macky Sall man moo ma dénkoon moom lay delloo ni ko sa coordonnateur bi nga ma jox gannaaw doyatuma la te ay directeur de cabinet ak ñeneen ñu nekk cappale palais ba di tuddee conseil ñooy tappale di def lu dul dëgg jëlal sa yëf jox ku la neex. waaw mais Macky daf la ko laaj. man maa koy delloo parce que li ñuy def li ñuy def ñoom da koo war a xam Touba bu fa daan ñëw daf ma koy wax moom Macky Sall danaan ma maa ngi ñëw Touba mag teertu ko teral ko gunge ko bu nit bëggee dal ci kawam ma xeex loolu laa dëkkee ak moom tey ñu may xeex man ci Touba tey ay waa këram yu ko jege di ko def yëg na ko yëgu ko du sama problème damay xeex wax ko xam le ne ñooñu di jéem a yàq sama liggéey damay jàmmaarloo ak ñoom mu wax ci bu ci mënta wax ma delloo ko yëfam. Mor Ngom nga bëgg a wax. Mor Ngom man li ma waroon a wax wax naa ah, ko dootuma tudd ci benn li ma wax daal journal yëpp bind nañ côté ñëpp comprendre non non mais boo ci delloo ginnaaw boo ci waxaatul day nuru leneen lu may dellu non li li ma wax dafa clair non waaw dama ni boobu léegi ngay gaaraale wax ci da am na ñoo xam ne ña nga fa ñi ngi ci wetam xam xam nga du kenn rek Mor dama laa wax ni la Mor sama rakk aw maag moom euh, kur peñante waxante dëgg lañ am sama rakk xaritu suma jabar bis bi ma ko dóoree li ma ko dóor ñëw na sama kër fa la ko deux heures du matin fekk bi muy ñëw di jiite délégation bii ci màggalu Daaru Xudóos woo na ma ñoo ànd mais li ma wax fii laa ko wax dama ni ko d'accorduma Arona Ndofène Diop ngeen di ñëw Touba la ngeen doon def ba ngeen di wut réew mi balaa ma kee jóg ma xam balaa naan ndox ma xam ko Touba ngeen am réew mi bëgg a def neneen ma ne ko la sama baay waxoon laay wax falu fu ñu fàttali la faloon ku ko def folli koo cay tegu maa ko wax dama ni ko bu ngeen ma waree rek folli ko te loolu laa gëm ndax war mooy nit ki nga ko doon xeexal bi xeex neexe bi cere ji ñëwee nga bëgg a ànd ñu la doon xeex di la wax lu bon di toppale loolu duma ko nangu. non wax nga ko leneen itam. lan egg wax nga ko leneen kay. lan la wax Mor Ngom kay wax nga ko leneen. lu ma ko wax non wax nga ni. yow mi ko tudd wax ko. bëgguma jàll ci baat bi ah lu ma ko wax. bëgguma cee jàll de. ah man bëgguma cee jaar yow daal. boo dee wax wax nga ne daal nit la koo xam ni wax dëgg yàlla ku amul jom la. loolu da nga wax nit la koo xam ni ñu baal ma ci baat bi noonu nga ko waxee vergogne kañ mooy lan pam ngañ te loolu presse bépp reprendre na ko pam ngañ waaw dafa am loo xam ni mhm. dafa war di leer mhm. man bu may wax ci généralité laa wax boo liiree ña bind ñoo bind li leen neex mais boo dégloo la ma wax lu clair la loola dama ko booleeg ñay yàq ñëpp dama ni am na ñoo xam ne dañ faa nekk di yàq di tappale di def loo xam ne teguñu ko amuñu jom sax ndax kon du ñaa loola nag loo bu du kenn ña ca bokk bari na de dama laa wax ne li tax moom ma cité ko mooy kon moom nga ci gën a yab daal ñëpp bari waaye moom nga ci gën a du yabeel c'est le plus proche collaborateur du président lu ñu def dara ci loolu te yëgu ko Euh, kon moo war a surveiller directeur de cabinet directeur de cabinet président de la république mooy ki nga xam ne moo war a filtrer l'information moo war a joxe kon cité wu ma ko rek en tant que Mor Ngom pour ay contentieux mais dafa am liggéey boo xam ne daa nekk ci responsabilité mu war koo def mhm. ba lépp lu lu yàqu mu war koo xam teel koo wax président d'accord mais kon bu dee ñuy yàq dañuy jaar ci moom wala ñuy ñëw ci moom mu leen di cautionner il une responsabilité. d'accord wax nga ko léegi honorable député nee nga Mor Ngom moom mooy plus proche collaborateur président de la république ndax kon kàddu yi nga ko wax waxoo ko président ci respect rek ak cër. Euh, en tant que directeur du cabinet. xam nga man ñàkkuma fayda ragaluma yow bu dee ku suivre nga ma damaa bëgg nga dem teg samay cassette yu bëree bëree bëri ci combat bi ma doon mëni ci Ablaye watte mhm. te moo doon président moo yor yor lépp Ablaye Wade lu ma ko war a wax rek wax naa ko Macky sal nag àggagul ci lu ma koy wax li may wax ci makki sal mooy daa sonn ci benn parti parti bi arrivé au pouvoir nit ñi am yaakaar ci moom ak parti ñu àgg pouvoir wàcc parti bi wacc militant yi wacc responsable yi loolu moo am ñëpp di jooy ay bàyyoo lañu parti bi ñu doon xeex ñëpp ci diaspora bi ak fii gisatuñu seen bopp waxuma état état bi liñ ci war a def ñee mais doo consacré wu ci état ba bàyyi sa parti loolu laa d'accordul état dafa nekk ne mais parti bi nga xam ne bi booy dem da nga naan nañu eh, man maa lire le discours d'investiture de Macky Sall. man nga ko génne may ma état bi aussi du APR may ma mais dama lay wax. état bi coalition. non a yaakaar la non non c'est pas que j'ai dit. Pape mais ñun coalition bi APR ñu ci boole. kon sunu parti ñun lañ war a defar coalition bi ñi ci bokk ñi ngi defar seen parti kuñ ci jox post ministre doo jël APR sa mouvement ngay jël wala comme Youssou day jël ci waa mouvement euh, Moustapha Niass jël ci waa waa AFP looloo am mais kon ñun ñi nekk ci APR doon xeex bu dee buñ ñëwee jox lépp alliés yi ñun ñu toog man sama mérite bi gën a tuuti mooy ma waroon nekk président assemblée mooy mérite bi gën a tuuti leneen luñ ma jox danaa ko téye waxoon naa ko mais day mel ni ab dividende la boo xam ne bii sax mëtul. man foogoon naa ñemeetuloo tudd président su assemblée nationale. man ba nga tuddee lañ la démettre yow. ci man moo conseil man yi. man foogoon naa ni amatuloo vraiment fitu tuddee. ci sax lu jëm président su assemblée nga xam ne man li may wax lu ma gëm la dama ni. waaw man minimum biñ ma waroon a jox. président assemblée nationale. mooy minimum bi. maximum bi. c'est important nga wax ma ko. non minimum bi. non muy maximum bi. mais amul maximum mënul am. maximum ah, loo jox nit ki mu jël la. maximum amul. ndax président de la République minimum kay mooy loo jox nit ki mu jël. mais maximum mooy li ko waroon jox nga jox ko waaw. li gën a tuuti. Mhm. xam nga assemblée am na. bi ñuy joxe Sénat ngi fi. conseil économique et social ngi fi. institution yi laa bëgg a wax dama bëgg a wax ni. xam nga président de la République joxe nañ ko ba pare. te man dama amoon candidat moo ci jot. mais institution yi des. dama ni minimum bi nga xam ne man moom laa jàpp ne moom laa yelloo te moom lañ ma waroon a jox mooy assemblée nationale biñ ma ko joxul aw ma problème par rapport à ça ndax loolu du ci débattre ndax lañ ma jox néew na bari na nangu naa ko maa ngi ciy def li ma man li ci des mooy question bi nga posé man bis bu ma demee ba APR mënuma ma cee wax sama xalaat bu baaxee ma ni baax na bu bonee ma bon ma génn APR li may wax. waxuma état waxuma ni muy fonctionner mooy li ngay waxaat rek ci assemblée nationale assemblée bi ma koy laaj dama ko sañ a parce que député la te député yi ñoo war a nekk président assemblée nationale. pourtant terewul nga jël ci sanction sama parti terewul nga jël ci sanction de da nga ko war a laaj mais terewul nga jël ci sanction. mais li ngay wax it bu ma ko waxee jël ci sanction naa jël sanction bi naa jël sanction bi je suis prêt à l'assumer damaa wax ni parti bi bu ma ci gisee loo xam ne lii baaxul. mayu ñu ma espace bu ma ko waxee parce que dans le parti amul benn cadre de change bu am depuis bi ñëwee pouvoir beeg léegi amul loolu parti la mhm. loolu laa lay laaj ah nga nag naa bokk ci partie bi ëllëg bu parti bi amee dëggatu tasu mhm. ñu ne way ñii ñoo waroon Macky Sall di ko nax ak di tappale ñu boole ma ci man kenn du ma ci boole damay wax ci teel Sénégal ma jël leen témoin que parti Macky Sall bi fi mu jaar ci toj la jëm loolu lay wax. ci toj la jëm. toj waaw ci la jëm bu ñu ko changé wul ni muy doxee ci toj la jëm. waaw mais parti bi mën naa toj te du yàq dara moom ci suñu yi ci réew mi. non waxuma réew mi. l'état l'état l'état fonctionne les institutions fonctionnent. Mm-hmm. gisuma problème dama laa wax. ci sama wax kon seen problème la yéen lay nekk. parti on parle de problème de parti. ok na nekk seen problème ak yéen waa APR mu bañ bi dañoo bëgg Macky sal parti bi gembaat ko mu falu yaat. mais dañoo bëgg Macky Sall bu defee deux mandats yi parti bi am meneen mbër ndax wo parti bi warul yem ci comme ab Ablaye Wade dem mënatuñoo am kenn loolu liggéeye koy joxe alerte boobu laa lancé bon d'accord léegi honorable député li nga wax ni mooy jafe-jafe parti bi est-ce que mën nañ ci boole départ ku mel ni Alioune Badara Cissé ci gouvernement bi ak ni mu génne ndax mën nañ ko ci boole bon kooku am na ku ma ko laajoon ci yéen Alioune Badara Cissé c'est un cadre du parti un des premiers leaders d'ailleurs comité boobu bi ñu demee ba nga xam ne génne nañu Macky Sall pour ñu xalaat parti bi nu muy tudd ak leneen moo ko jiite woon membre fondateur la boo xam ne bii turam nga intérieur kon APR la c'est quelqu'un que je respecte beaucoup lu tax ma respecté ko mooy si cursusam ak ànd bi mu ànd ak Macky Sall bu rafet mais xam-xamam aussi akub taalibeem donc c'est un grand leader mais li ko génnee tey jii ci ci ci ci ci loolu mooy li ma lay wax ba léegi man xawma ko kon lu ma ciy débattre man ci cadre parti bi laa bokk mais xaw ma lu lu tax mu jógee fa billahi wallahi taala xaw ma lu xaw ma ban faute la def xaw ma lu tax ñu jëlee ko moo tax mënu ma ko commenter te laajoo ko ko laajoo ko Macky Sall Badara Cissé benn yoon lañ fi gisee fe nu gisee ci mbooloo la mënuma koon a laaj ginnaaw gi ma tukki gisuma ko Macky sàll fi ma ko gis moom itam bi mu xewee ak léegi benn bis la bu ma bokk ak moom añ ñu bokk toog ci mbooloo li nga wax ni yomb na de li nga wax ni yomb na de. mais ci laa ko gis boobu léegi léegi mu jege weeru yàlla jaralu la déplacé. mais man nekkuma fi woon wala nga jël sa téléphone am. ci ko ci wax doo mi muy doxee. Mhm. man dama am liggéey ci bitim réew di ko doxi man événement bi bi muy am fekkuma ci réew mi bi ma ñibbi seeyit commentaire yi may dégg laay dégg mais commentaire yooyu du ma ko commenté mënuma ci wax. pourtant li la ñor yaa ngi ciy wax li la ñor yow. muy sa coordination Mbacké. moi je parle ak problème yi fa am yaa ngi ciy wax. dama ni. Mhm. dans ma coordination il y a pas de problème. xam nga lu fa am. mooy dama ni la ñuy yàq nekk fii di jaxase. loolu am na ci politique yëpp. jaxasekat yooyu nag laa bëgg ñu arrêté. ndax bu dul loolu riposte bi may def ci fan yi ci kanam da ko xam. waaw. léegi départ Alioune Badara Cissé loolu nga ci mën a wax. xaw ma ci dara lu ma ciy wax. Alioune Badara Cissé kay xaw ma lu ko fa jëlee. mais Alioune Badara Cissé c'est un frère de parti qui a combattu avec nous que loolu laa la mën a wax mais mënu ma wax leneen. li ci des nag xam nga comme président moom mooy choisir ministre man dañ maa dindi woon dégg nga ma wax ci. j'ai refusé quand vous m'avez posé des question ci affaire bi ma jëlee ci ministre conseiller bi. dama ni leen du ci wax. parce que président moo ma ko jox jël na yëfam. man toujours boo ma gisee mooy discuter ke politique la. politique nag duma ko bàyyi ak Macky Sall dama cee am wàll bokk ci. daa ciy wax sama xalaat. d'accord. beneen ponk boo xam ni nekk na wàllu actualité itam muy assemblée nationale berndeel nañu leen yéen député yi ak seeni i soxna ay passeport diplomatique ndax loolu ci yoonu yokkute mën nañu ko cee boole. Euh, bi ñu doon wax ni passeport diplomatique yi dafa nekk loo xam ni ku ne am na ko bari na euh, tey ñuy bëgg lu toll ci téeméer ak juróom fukki député bu ne sa jëkkër mbaa ay jabar ku ci ne am passeport diplomatique mën nañ ko boole ci yoonu yokkute. est que yow mos ngaa gëstu passeport diplomatique bi ñuy ak si ñaata affaire. bari na. fukki junni ak juróom-benn France wax nañ ko seize mille xam nga seize mille yi du ñuy député ki ministre li ma bëgg it aussi Sénégalais yi wax naa ko léegi ci rajo Walfadjri bi euh, euh, Ngom di def wax sa ak benn reportage dama ni ko bala ngeen a reporter da ngeen a war ni laaj moi je suis vice-président de l'Assemblée je suis membre de la commission des affaires étrangères maa ngi ci sama troisième législature première législature ba léegi man ak samay jabar passeport diplomatique lañu yor ak ñëpp ñi ay député ndax député bu ne dañ la doon jox passeport diplomatique jox ko sa benn jabar jox la passeport de service loolu Abdou Diouf la tàmbale Ablaye Wade bi mu ñëwee man ak ku demee ne man sunu jabar yëpp ñun ñu yoroon ñeenti jabar dañ ñoo jox passeport diplomatique looloo fi amoon moo fi am ba léegi dolli ci ku mel ne aw Diop ñoom ak ki ñeneen ñi fi ne seen njaboot yëpp même ñi nga xam ne du ñu ay député dañ leen a jox passeport diplomatique ak nag woyu yeeg jaaykati drogue yi nga xam ne dañ leen a jaay passeport diplomatique looloo fi amoon ci wàdd ah nga ni député bi nga xam ne cent cinquante et une personnes yi ñu fal xam ne dañoo xeex yi au suffrage universel muy président de la république plus cent cent cinquante députés ak seeni jabar ñu am passeport diplomatique ma lay laaj Pape Ngagne bu dee nit ku objectif nga ci lan lay tegu un député dem rang fële ñu jël ay Samba Soura Bali ñu jox leen passeport diplomatique ñu jaar salon d'honneur député bi di voyager jabaram dem jaari fële moom mu jaar salon d'honneur Macky Sall xam nga lu mu def li yi deful c'est un républicain dani li ñu doon def te xam ne du lu formel dérogation la woon ndax benn loi defu ko man dama koy formaliser mu nekk ab yoon député bu ne ak say jabar ngeen di am passeport diplomatique jaadu na wala jaadu bu dee passeport diplomatique kay dañ koy ñaan ñu mayee ko ci politique kii politique politicienne député bi nga xam ne c'est un élu représentant du peuple sénégalais am légitimité yàlloo na ko passeport aw kayit la passeport du tax ñu de ñu ñu ñu ñu ñu wàññil la passe passeport du tax ñu yóbbu la ci benn salon bu sedd boo xam ne bi kiiwul boo génnee Sénégal rek salon d'honneur sax dootoo fa jaar fiil gi rek xam ne boo taxawee fii ay ay doomu sénégalais ku nekk di rang ngiram visa yow nga ni passeport diplomatique kayit rek la xam nga passeport diplomatique bu doon këyit rek la du boo xam ne. passeport diplomatique ba léegi da ngay rang. note verbale lañ lay def ambassade yi rek. ambassade yi da ngay rang dama waxuma privilège dama ni li nga war a wax askan wi mooy passeport diplomatique député yépp moom lañ doon am ak seeni jabar du lu bees dañ ko doon am kay ci dérogation léegi nag Macky ni moom nañ ko am ci yoon xam ne ñëpp dañuy xam ne yoon la conseil économique social dem fa ña fa nekkoon ñëpp am passeport diplomatique xanaa député kay bu ñuy fab conseil économique social yi ñuy nommé jox leen ko ak seeni jabar war nañoo jox député sénateur yi ñu nommé ñëpp amoon passeport diplomatique ak seeni jabar ñiy wax li ñuy wax xamuñu ci dara dara dara waxi naa fekk la ñuy wax wax ju baaxul la ñuy wax mais dama bëgg li ngay wax léegi xam nga lu am solo man te bu doon Macky Sall daf ma déglu xëy na du ma déglu ku amub wala rajo daañu la audité ba xam li nga war a fay fay nga ko ndax mënoo di jël li bon ci télé ak ub rajo rek di génne li baax doo ko génne ak di jaxase xel yi te xëy na sax sab télé amul amul amul droit wax ndax bu fayul li mu war a fay ah, amul droit wax bu doon beneen réew dañ lay dagg dootoo wax ñun ñëpp ay nit lañu te loolu danaa ci gëstu jéem cee def proposition de loi ak boroom xam-xam yi ñu seet. paysage médiatique bi. loolu kay commencé nañ ko ni doxee. loolu kay commencé nañ ko ndax baaxul. wax sa xalaat saaga ku la neex. no wax lu la neex ci rajo yi. honorable yow ñi bon rek ngay dem jël leen. ñiy wax lu baax doo leen jël. loolu loolu commencé nañ ko parce que dégg nga fisc bi di laaj un milliard groupe Walfadjri. a ah. kon xam nga ni li commencé nañ ko. xëy na kay peut-être yeneen groupe ngay wax waaye. maan daal ñëpp laa wax génneewu ma léegi génneewu ma keneen dama ni. Mhm. yuusoo yi sama xarit. Mhm. mais bu dee du fay li mu war a fay. day bokk ci ñi bu ngeen génnee ci mbedd mi ñu dóor leen ni lacrymogène ndax moo xew ci réew mépp wala pompe ndox mu tàng ni ba élection jotaat man loolu laa gëm parce que nag réew mi du ngeen ko yàq ndax fi mu ne média yooyu bëgg yàq réew mi bu nit waxee dara ñu dagg leen la wax la leen neex loolu mooy am da ngay wax lu baax ñu dagg la ca bon def ko gros tiit te du ñu piblier loola te ñoom xëy na sax waruñoo waruñoo wax ndax du ñuy journalist wala groupe bi ñu ne fayul benn droit day bindew kayit rek di jaay journal yu bari yi di lambar lambari ci réew mi waree su ko seet man de loolu danaa ko xeex man euh, man de yaakaaroon na am nga beneen xeex ci assemblée nationale. fépp lay am nga beneen xeex boo xam ne leen koy xaare tey. la élu ñi ngi leen koy xaaree mais nit ñi dafa am ñu leen mere yéen. non dama ni am na loo xam ni ñi ngi leen koy gën a xaare lu lii ngay wax. li ñu leen di xaare mooy courant bii ñu ne dañ koy yokk li ñu leen di xaare mooy non li ñu leen di xaare li ñu leen di xaare mooy ceeb bi nga xam ne depuis ñu leen fal ceeb bi wàññiku yokk gën di yokk lépp li nit ñi dundee mi ngi gën di yokk non man 1000 litres diw ci can sëñ Saliou laa jënd 14000 ko jëndi Touba dans une compétition commerciale la loi du marché qui dicte les prix diw 19000 la doon jar wàcc na ba quatorze mille cinq cent jox ma xaalis loo bëgg ma jëndal la ko andil la ko kon loolu ku la ni wàññikuwul waxul dëgg diw de wàññiku na moom ceeb it wàññiku na xanaa li mu wàññiku daa bëriwul sukkar it wàññiku na kon loolu rek la ñu waxoon denrée de première nécessité jàllal feneen foofu la ñuy yem kay <laughs> ñu ngi lay gërëm di la sant merci beaucoup honorable député ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax baax mbokk yi mu nekkoon seen émission faram fàcce tey nag euh, amoon nañu mbégte bu yaatu doon ci recevoir honorable député Moustapha Cissé Lo euh, ni mu ko waxee dégg ngeen ko euh, jotam xat na jafe-jafe yi ñu am yëpp aussi pour enregistrer ñu ngi ko ci jégalu bu baax waaye terewul mu nangul ñu ko euh, wuy si ñu loolu am nañ ci bégte lool di ko gërëm di ko sant mbokk ñu leen di jox daje incha allah ci beneen numéro faram-fàcce bu ci yàlla andee jërë ngeen jëf.